mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jéggulu ci kàddu yi nga xamante ne si ñu ngi koy yëkkati fii ci euh, kanamu kilifa gu tedd gi di Baye Alla Sylla ànd ak délégation boo xamante ne si bu mat délégation la di ci nuyu sëñ Fallou Lo mi di sunu xarit di sunu wëlëre waaw di am kontaante ak mbégte ci dalal gi ngeen ñu dalal ak wax jin fi dégg muy lu am solo lool xam naa wax ci Baay Alla sax fii ci Madiyaana lu yomb lay doon ndax euh, yéen a dëkk ak moom fii ci Madiyaana nga xamante ni si daanaka li ngeen soriantoo matul sax cent mètres kon nag loolu kenn gënu leen a yey ci Baay Alla liñ leen di wax nag di leen ko waxaat mooy njariñ nag képp koo xamante ni jege nga moom bul fexe kenn bañ la caa ëppale na fexe ba gën caa jege gën caa yey te loolu mooy bàyyal la si la mii njariñ kese la lu àndut ak lor ndax niñ ko waxee léegi seexu naa ni àndu leen kenn moom ngeen àndal loolu noonu ñëpp ñoo gis ñuy ànd ak bàyyi la moom la ñuy firndeel di wax ni nag Baay Yàlla nit la koo xamante ne sii këram mi ngi fii ci Madiyaana defar Madiyaana rek nag moo ko ñor mu ànd koog waa Madiyaana ba lépp lu ci lawa mu ànd ci waaye première bi mooy waa Madiyaana ndax Madiyaana la dëkkee Madiyaana gii la dëkkee këram mi ngi nii dend ak yéen bu ngeen demee dangeen ko gis amul ku leen di téye amul ku leen naan xaar leen audience loolu nag yaakaar naa yombul ci ku mel ne moom mii ndax ñi nga xamante ne sii yàlla am na lu mu leen dénk wala ñu am ndombal tànk balaa nga leen a gis da ngay ñaan audience walla nga ñëw garde corps di la téye waaye yàlla dogal na loolu lépp da koo jël teg ko fee doon taalibi sëriñ Touba Serigne Touba rek ñor ko ànd liggéeyal Serigne Touba rek rek rek lay liggéey day def. di xam ne ay xale ngeen waaye xale yu am am jom ngeen. xale yu am fulla ngeen ndax lii ngeen taxawal yombul bàyyi la nag lu mel ni da ko ñor lool lii dafa bokk ci lu ko ñor muy ndaje yu mel nii di def ci mbiru sëriñ Touba ndax yaakaar naa kuy dox ci social boo gisee lu mel nii dinga ci gën a dox gën cee xuuse ñu leen di leeral ni bàyyi la nag nit la koo xamante ne si ci social rek lay dox màggalu sëriñ Touba gi ñu génn barki démboo Njaay def na ci jëf joo xamante ne sëñ sëñ Tuubaa rek moo ko mën a fay ndax li ñuy wax jëfandikuwaay di 30 tonnes ceeb jënd na ko joxe ko te amul kenn koo xamante ne xam na la ci day joxe rek amul xàjj amul seen te yaakaar naa noonu la ko sëñ bi bëggee noonu ma ko defee ci ceeb noon la ko defee ci suukar noonu la ko defee ci leneen leneen ay enveloppe yëpp noonu la ko defee te bu mu koy def day toog ci piliaanam nii ci sees bi si buntu kër gi ku ñëw ni ko bàyyi la nangam mu yëkkati jox la loolu nag yaakaar naa yombul ci jamono jiñ toll nii mu am nag fu mu féetee di fa def ay ñaqam di bëgg foofa tamit di fa am ndam muy président Macky moom lay àndal di ko jàppale yaakaaru ci kenn nag ku dul ay dëkkandoom ak ay am di jàmmam ni ko sëñ Seexu naa waxee léegi rek moo am ndax euh, yaakaar naa élection yi ñu génnoon dañ ko defoon ci benn liste liste bi nag yaakaar naa ñu bari dañoo comprendre woo lan moo taxoon ñu def ko ci dañoo tànn ñi ci dëkk bi ñëpp bari na ñu tànn Baye Alla Sylla di doomu Madiana def ko ci liste bi mu war a doon député war a dem Assemblée nationale ñëpp waroon koo jàppale mu dem def loolu waaye day mel ni nit ñi dañoo xamul ni buñ voteeloon Baye Alla la seen sens lay doon waaye buñ jàppoon ni Macky Sall lañ voteel wala keneen xamuñu luñ war a def ndax tey jii li manqué ci Madiyana bari na waaye lépp ci ñaqam la koy defee maanaam làmp yi ñuy taal ci dooleem la koy defee ceeb bi muy jënd ci dooleem la koy defee tey jii nag bu doon tan demoon na assemblée nationale loolu dana gën a yomb lool loolu nag dama leen di yee yéen ñi nga xamante ni si yéen a ngi nekk ci mbir moomu dañoo bëggoon ngeen xam ki nga xamante ne moom nga dëkkal ak ki nga xamante dëkkoog moom ndax ba ngeen di voté am na ñun voteel tey jii ñooñ ñu ngi yor seen kaat 4 ak yor seeni i di ko yóbbu feneen te mun leen leen a gis moo tax dama bëgg ngeen yeew bu baax kii ngeen dëkkal mu ngi nii di Baye Alla Sylla dëkk fii ci Madiyana di koo xamante ni social rek moo ko ñor rajo yi may waxee nii man maa ko jëlee woon maa ko jëlee woon mu jënd ko ngir képp ko am soxla bokk ci seeni Baye Alla Sylla boo ñëwee du la si laaj dërëm yaakaar naa mi ngi ko jëndee woon yaakaar naa bu ma juumut un million neuf cent xama deux millions neuf cent la ko jëndee facture baa ngeeg man yoo xamante ne si ba tey jii mënuta a la wanneel facture bi nii la mel moom mii moo ko keroog ñoo ko jëli indi ko wàccee muy rajo yii rajo yi bees tàq moo ko dajji ba tey jii amul benn dërëm boo xamante ne si génnee na ko si nit jox na ko si pour du ko luwee dañ koy jox képp ko soxla rek boo ñëwee wax jaar ci ñu jox la ko nga dem jëfandikoo bu jeexee nga delloo si jàmm loolu nag noonu moo ko defee ci rajo yi noonu loo ko defee ci oto bi oto bee ngay séen ñun séeréer bi la ko jëndal bu ñu ci bëgg a dem dañ ciy dem loolu na yaakaar naa yéen ñi kenn gënu leen cee yey dama bëgg na loolu ngeen yeewu ci bu baax xam ñi nga xamante ne si dañ leen di jariñ ak ñi leen di nax ñi leen di nax mooy ñuy ñëw dajaloo fii ni leen nangam ak nangam na Macky Sall président nangam naam dem seen yoon su ëllëgee ñu taxaw fee yor seen i kaat kaat ak seen i dem kii ngeen dëkkal nag dama bëgg ngeen jàppale ko li mu bëgg ngeen defal ko ko ndax làmp yi mën a tàkk yoon wi mën a ñëw ndox mi mën a xelli